ne leen dem leen a àndal ngeen ànd ñu ànd ak jubal ba ñu ànd ñu jàppale ko jàppale leen jour bi élection yi ñëwee jour boobu la commencé di xas maire bi yéen ko fal même su nekk waa Médina Sabakh yàlla nag mooy décidé li yàlla décidé jàmm bu ko bëgg wécc di nga sol Ibrahima ñaar la fi yàlla teg waaw ma ñaar la suñ ci demoon bu fonkee dañ continuer di fonkee mais ku mënul nangu loolu loolu li indi seen candidature yëpp xamulu ko indi dañ bëgg wan Médina Sabakh ne falu leen Ibrahima a erreur la woon moom ngeen fal parce que xam na ne su ko faloon du jël sax troisième ci liste parce que yeneen candidat yëpp noo koy raw dans le département donc yéen waa Médina Sabakh laay wax su bëggee seen dëkk bi changé nga xam ne Macky Sall dina ko yokk décidé na keroog ñu ñëw fii Nioro voirie bi intérieur dañ koy defar kam bi yëpp pour courant bi ñu yokk ko tey seen doom Mina Ba lañ jox près de lu ëpp 750 millions war jigéen ñi commune bu ne mu dugal fa 50 millions lu tax commencé wuñ parce que ñi xam na connotation yi mais am lu am solo ñu war a wax fii ngeen votel ñu kenn gënuñu fi dëkk nag mu leer kenn ëpp fi kenn mbokk nag aussi mu leer ñun politique du affaire ay mbokk fii laa dëkk Yalla dama ne Ibrahima ñaala fi tek jàppale muy Ibrahima Mbow Oum di ngeen gis si nekk moom mooy tax lu ne def na ko pour ma ànd ak moom mën a ko wax président Macky Sall am na dama bëggoon wane ni ñu toll moo tax ñu ab sa récépissé dama ak yow guddi bi maa ko indi fii Medina Sabakh Ousmane li laa yónni muy de récépissé xamuñu woon Ibrahima Mbow Kelle Dóor le député Théodore moo ma jox liste bi moom tey ma indi ko. ma ne maa ngi sant yàlla comme su ma wërsëg wala lay nit di tànk ba bëgg nekk député sante naa ko yàlla. merci wala ah. Ah. mu neex mu indi ab ba nag su ginnaaw ku ne mën na ci jaar. dëgg la problème yow kër xanaa da ngaa ñaanee say yaay say nijaay. waaw xam da nga bëgg ñu gañe leen ci dëkk bi troxal leen. loolu nga bëgg mais bëgguloo pour leneen. da leen bëgg a troxal loolu nga bëgg. ñu nommé ko sa yaay nommé ko sa nga ne àndoo kooku dëkk tey su ngeen voté ba ñoo ñàkk toroxal ngeen seen doom yooyu. dëgg may ñu may ñu may may ñu may ñu may ay pojo pojo. taxaw takk seeni rajo di saaga di wax nit ñi lu bon loolu ñu dérangé wu ku saaga rek xoolal sa waajur bu baax parce que ku respecté sa waajur doo saaga politique la ñuy def dañ ko def ci yar ak ci daj dama ne démb dem nañu sanga buddee na ñu ñaar pakala dëkk ak dëkk dinañ fa dem nii nga dinañ fa dugg dinañ wax fen yi ak li dul dëgg yëpp fii Eh, Macky Sall fi def ay nit taxaw fi naam ne su ngeen leen voté leen ñu taal seen lamp mais bu dee Macky la fi teg ba 2024 yàlla moom la fi teg yàlla su ne Macky Sall 2024 ñeneen ñëw keneen ku mën a ñëw mais fii ba 2024 mairie bu ci wala def dëkk bu ci contre Macky Sall da ngay sanctionné yaa ngi lor yaa ngi lor sa askan di Omar Gueye wax léegi ci équipe yi équipe de ne dinañ ko jox maillot ak ballon équipe Linguère bi qualifié dinañ leen may deux cent mille francs jeunes yi de yi wax naa ko wax ko Mina de may nañ leen deux cent francs may nañ leen deux cent francs jigéen ñi may nañ leen deux cent mille francs dagaloon mina ak sali yoo xool ak sali bu xool nan ngeen may defee dinañ fi ñëw meeting dinañ fi def yeneen ak yeneen ak yeneen lu ñu bëgg suñu demee ngeen nuyu na suñu mag fara ñaabu baax a baax a baax a baax amuñu jot mais jaar kër ga nuyu ko jaar fu nuyu len mais dañ ci ñu war dem mo bari ñu bëgg ci li lañu waxal fi ñi len di wax dañ len di tardel dong auto bu ñu yor sax su nekkul gambi lañ ko wax bu ñu jox len campagne mais ñu ñu fañu di mëna ñu nit jaamu xam sa bokk ci jaamu yalla la bokk nit da ngay xam sa bokk yow mëno nga ñu mëri mëri la sama naam da ngay def ñu bëgg ma gëta am na seen pour la seen fayda fi li ngeen fi gis ñu ngi koy def dinañ ko continuer di ko def. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp oh, oh, di nuyu borom dëkk di nuyu imam yi fi nekk yëpp di nuyu suñu yaay yi ñu ngi ànd ak comme ni ko waxee léegi le maire Saliou Ciss le maire àndal bay suñu mag yëpp yëpp tey woon ñu ñëw ko dañu nii ñëw fekk si délégation bi am solo ak El Hadj Wade lii ñëw fekk délégation je pense que. Eh, eh, moom moom euh, Ousmane li ñu doon am nañu ñëw dañu jaaroon ndimbal am nañu délégation bu fekk Ousmane Gueye ñoom Kaati ñoom Amath Touré Disa ñoom Kalaam Mina naroon na ñëw dañu ko woote dañu ko mën a waxtaan yëpp képp moo tax ñu koy nuyu suñu sër Mina Ba lu tax ñu ñëw fii dañu ne dañu fi jaar ba indi ko pour choisir dañuy dem. te bu looloo tax ba lu fi yàgg ñun ñëpp fàttewuñu kenn ñëpp ñu ngi nuyu di say den ñu nuyu njaboot yaay yi di yaay yi ñu wat di nuyu suñu yaay yi yang Touré ak ak ak ak ak say wat ñu ngi ñëpp di boole nuyoo bi suñu xarit mère Diagne ñu lay nuyu bu baax a baax a baax waaw di nuyu aussi Daka di suñu fans di la nuyu bu baax a baax di nuyu l'honorable député Néné di nuyu Omar Gueye ak suñu mag Fara Niang ngeen joxoon ñu ko suñu nuyoo suñu ko waroon jàmm dinañ jàmm lu tax ñu fi meeting dina am dañ fi ñëw di nuyoo tey mais meeting dina am comme ni ko waxee tey suñu sañoon dina yof saa ñu jox bal la jox wax di lépp wax mais dafa am lu ñu fi indi te lu ñu fi indi caaxaan ay élection locale la ñu dem fii la ñu jógee élection locale bi ñu fi amee ñu ñëw waxtaan ak ñoom Ousmane jubóowuñu